mat nag loolu kay yomb naa tontu Khalifa Sall lu tax waxuma ci lu tax waxuma ci décret bi dama koo ñaan sama borom ba sonn jaar côté bu nekk ngir ni bañ koo tëj sama borom xamal ma ne ma carrément décret bi mat na force lañ koy moo tax waxuma ci loolu kay c'est pas c'est pas problème moo tax waxuma ci dara dara dara Khalifa Sall xamoon naa bu yàgg ne day dem ci kaso bi noonu nag laa bëgg ñëpp gëmi ko ne nee naa leen ki war a toog ci nguur gi ki ko war a toogaat xam naa ko bu baax a baax a baax waaw loolu moom yomb naa lijjanti yomb naa leeral yomb naa tontu itam Ama jimmi Ama jimmi xam nga man keun seun dama am juroom ñaar fukki jimmi jimmi yo xamanteni ñi ngi takkol man suba ngoon bu dégg becc te duñ tàqalikoo man lolu bëgg na mu leer nañ ni lolu mom jurul ba ci débat sax wa lolu itam tontu ndax lu mel ne lu mel kané nit jekki-jekki nek amerique wala fenn ñu yonne ko ay ñaan mu japp ci sensé wa yow da ngay mëna gëm ne li may def ni warna mëna ag amerique rek te wuñu ko te asman nak toba bi mo mëna ñaw ba lolu mëna am rawatina nag baatin ñun buñ gëmee suñu bopp war nañu mën a toog sax ci ak sijaada dóor ay per sijaada ginnaaw yóbbu nu fu nu neex wasalaam